Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ax lu làmb di ko sagoo muy le ministre Matar Ba moom la ñu fas yéene sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateur yi xam na nañu ne saa yu mbéyeg lum feggoo ak Momo Ngom làmb jooju faaw mu wàcc faw mu ala daw me faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye Ndour ministre conseil à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de Thiaré njal gi ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de Jaxaw Sine ñu fas yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour mujj bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateur yi fan sa bu kër Ndour moo leen di woo di woo waa lamb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci jaxaw sin mise ba di 3 millions de francs CFA caatu Daouda Fall ñoom ñëpp ay champion lañ booy yëpp booy yëpp tout fils de Balla waaw seen grand ngi nii de dafa mel ni keroog la nga waxoon dëggal de waaw liiru moom suñu grand la suñu lépp la comme ni ñu ko waxee rek euh, moom mënuñoo ñaan dara euh, di ñaan yàlla rek yàlla na yàlla tappe xol yi parce que liiru moom naa ne moom li ko ñor moom mooy jàmm géejawaay te ñun ñëpp moom la ñuy ñaan yàlla suñu raq yaa ngi ñëw tey waruñoo fekk ñun suñu bopp ñu nekk ci loo xam ne mooy naka sudul noonu. moo tax euh, chaque jour dañoo war di tiital suñu rakk yi. ñu ñaan rek jàmm am géejuwaay loolu la ñuy ñaan yàlla yal na yàlla tàppe xol yi wallaahi yal na yàlla tàppe xol yi ah man de ñu baal ma nag ah, képp koo xam ne daf naa ko lu ko metti na baala a baax a baax ndax àdduna amul solo mm-hmm. suñu xoolee suñu papa yi fi jóge mm-hmm. ana suñu papa Mbaye Gueye ana suñu papa Double ana suñu papa ba Boy Balla ana suñu papa Mor Fadam ana ana suñu papa Père Aline Seye Père Balla Gueye ah tay bàyyi na Yékini bàyyi ah? na loolu lépp war na tax rek ñu xam ne àdduna amul solo mamma àdduna amul solo ñu ñoo bokk ndey bokk bàyyi nañ leen tapé xol yi. Mhm. te tu ñenn ñi. te da ngeen relève dañu am lu ko war a waaw suñu rakk suñu rakk ñu ngi ñëw. parce que da a amoon ay mag yoo xam dañu leen a taxaw woon. waaw moo tax ñu dañoo war a taxaw suñuy rakk. voilà man dama ciy xaar sama tànk tubéy ah. Mhm. samay rakk laa am ñoom laay tiitaroo géejuwaay laay tiitaroo te incha allah bu neexee yàlla danaa ci xaar sama tànk tubéy ba fi mar egg nii sama rakk dinaa leen jàppale ba ñu yegg fa te dinaa ci xar sama tànk tubay bu baax a baax a baax di ñaanal sama rakk yi nañ muñ at amul solo ñoo bokk ndey bokk bàyyi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di baalu àq ñëpp képp koo xamante ne sa xol métti na ci li nga dégg rek ñu ngi lay jégal di la baal li ma koy tey bu doon tey problème dafa am lat xam naa ko boppam bu réew du taxaw fii hmm. bilaay du taxaw fii bu doon problème dafa am man du ma fii mais ñun bu ñu bàyyi suñu lépp di waxtaan dañuy jël ànd ak suñu grand liiru kon dafa naan yaa quelque chose amul problème amul na gars yi bañ a yóbbu fi yenn détails yi problème problème amul man la da guerre ñi naa taxaw fii léegi wax loo xam ne wallaay weñ bu ci dal da ngay dee ndeysaan Balla Gaye it noonu mi ngi may dégg mm-hmm. te buñ toogee man ak moom moom dina xam ne dina ma dégg xam na ma bu baax la mii xam na ma bu baax ñu tey ànd nañ àndati àndati àndati àndati mais lii dafa jot arrêt dafa jot dafa jot ñun ñu nekk benn nekk benn su rakk yi war a ñëw moo tax ñu suñu wàll léegi mu wuy kenn du ci bëral dix ans mais ay ñoom macca tey boo indoon lim tey jii nii ak fils de Balla ay ñoom ñaabu njaw ay ñoom Cheikh Super jamono ama seen senior baytin boo yooyu noonu bu ñëwee tey fekk ñu naan ñu féebaroo kii lay tas na am na ñoom bañ toog la ñuy toog naan ndokk mais nag waxante dëgg mais nag li ñuy waaj moo waral li ñu waaj ñi rek ànd ak sunu grand liiru ñu toog ki dajeeg sawaay xam nga waxtaan li ñu war a kii duñ ci benn erreur benn li des seen seen kanam quoi. non non non non sunu sunu li ñu war a def duñ ci am benn faute benn erreur moo tax liiru daje la ñu duñ ci sonn boobu am résultat ma leen di am résultat kenn naa man ak moom moo gënoon tàng ñii nga wax ñëpp. wallaahi te liir defe ma siggi xool te lu wax dama koy def. kon dëgg rek may mujj. may xool ci loolu rek. macha allah ok ku àddu ko loo ci dugal. bu fi jooyaat nag non non jooyu ma. Ah. na saytaane yàlla na yàlla suturaal ki mu jëm yàlla suturaal ma ñu ndamu seen incha allah seen ah, liiru liiru liiru liiru kaay kaay kaay nii ana lak taxawal nii lak taxawal nii keetu liiru lak seen mag ngi nii kaay taxaw nii Papis Papis kaay taxaw nii waxi kilifa waaw la sant waaw ah. waaw guy gi buusal jegeel li nga tuuti. la set lépp la set ko waral. waaw kuy saytaane mbaa ngay wax na nga tij sa laamee nga not. waaw ñun géejewee lañ am te géejewee lañ tiitu. waaw ci géejewee ci kaw ci kanam. yàlla na yàlla suturaal te mosoon ci cat ak laamee ñun ñoo bokk ndey bàyyi di préparer la set ko yàlla may ñu dem seddu guy yu. sa sedd na te li nga bëggoon yaa ngi ci tànk am ko. bañu ma ci dara. <laughs> waaw dañoo jub bis lan moo tax ngeen ñëw ba ci taatu géej gi. waaw toog fii yow. waxtaan ak ma gisee daal tiit ngeen mooy bëri. voilà lan la la am. exhibilité lépp. ex. exhibilité exhibilité ala. waaw léegi dafa am seen benn vidéo yéen ñaar. léegi da ngeen a taxaw aéroport ba bu jas bi. aéroport bi nu mu tudd yow xaaral ki njëkk waaye aéroport bi nu mu tudd. aéroport kii. ABD ABD. nga ne aéroport bi nu mu tudd. ABD. yow ABD. Ah, léegi ah, léegi ABD mooy lan. non moom lañ moom lañ ci bind ay dafa ABD. ABD lañ ci bind. bi ma tuddoon Léopold Sédar Senghor bi ma tudd ABD. bi mu tuddoon bu Yoff. AB Léopold Sédar Senghor. Léo non ABD bu njëkk mooy Léopold Sédar Senghor. waaw moom laa wax bi mu tudd ABD. non attends da ngay wax ñu dégg lan. pousse-moi sa sa caméra da ngay wax bu njëkk ba nu mu tudd bu njëkk ba nu mu tudd. Léopold Sédar Senghor. oh. laa ilaa rek ñu ngi ci euh, kii bi wala ma bañ wax géej gi ah Lirou. waaw loo neex wax hôtel bi. ah hôtel non yéen a ngi ci taatu géej gi ah et sama gars yi sax ñoom ñi amul combat itam mel ni ñoo gën a taxaw instant bi sax. daanaka am combat ñàkk am combat la man sax daaw dama fekk muy entraîné. waaw am combat entraîné ñàkk am combat mu bëgg maa song ma xam naa li may xam parce que boobu mer na ma mer goo xam ni man ko saa sama tànk day métti. waaw ndax ndeysaan nit ku baax la nag. waaw moom moo wax dëgg yàlla moo waral comme ni mu waxee rek am na lu ñuy waaj. toog waxtaan après jotaay xam nga muy man muy liiru muy Balla Gaye suñu rakk yëpp ñoom Alioune Seye ñun ñëpp parce que lii mooy àdduna mhm. parce que tamit xam nga suñu grand geste ñu ci jox liiru ñun amuñu lu répondre ko répondre moo ñu ko déglu rek mhm. di waaj di waxtaan lépp waxtaan bi la rek mhm. waaw lépp ci waxtaan bi la am loo xam ne kenn ko wax ci micro mais la de ak Mathieu ñu taxoon nii nga xam ne am na loo ko waral quoi te incha allah yàlla ci yàlla sutura rek incha allah sa sa sa sa sa sa mag sa kanam joo yooyu bi nga ko seetaanaatee lu mu def ci yow. non loolu àdduna bi yëpp koy wax yow xam nga ne liiru lim jooy ëpp na liñ génne. Mm-hmm. mu jooy yu dëgg nag. may naa ko ñaari yoon ndox musaari keroog yëpp nan da koo jeexal. waaw loolu du luy lu du loo xam ni ay tirise la ko mm-hmm. waaw man moom euh, mën naa ne am na loo xam ne ci wax. mais incha allah li ñuy def ni moom yàlla ci yàlla sutura may ci ndam quoi parce que ñun suñu rakk moo tax man may defaraat ah. suñu rakk yi war a ñëw nekk suñu ginnaaw mais ñun suñu wàll léegi wooyu mais ñu defar ñu ñëw nii rafetul mm. après dañ naan ñun li ngi mel école moo faram bàyyi lu ne mais dama naan teg parce que maa jiitu kenn wax ak yow loolu am na solo guy mbokki Sénégal mbokki amateurs yi mbokki région de Fatick spécial ndéwénal la leen fans club bu Kër Ndour andil le surlendemain de la tabaski muy grand gala de lutte sans frappe di spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba ministre des sports maire de la commune de Fatick fans club bu Kër Ndour lan ngeen nar ñu ne làmb ju rëy kan ngeen ko dippe ñu ne ki sportu Sénégal yépp di tiitaroo ki commune bu Fatick bi di tiitaroo ax lu làmb di ko sago muy l ministre Matar Ba moom la ñu fas yéenee sargal daal di cay teg 3 millions de francs CFA muy bés bu rëy ñu jàpp jàpp ci jaxaaw siin daal di cay toftal nag animation bu amul fenn ndax amateurs yi xam nañu ne saa yu mbéyeg lum feggoo ak moomoo ngom lamb jooju faaw mu wàcc faaw mu alaa daw me faaw mu yëngu ba yëngu fu dara nekkul ñu am ci ay invité d'honneur ku ci mel ni Abdoulaye Ndour ministre conseil à la présidence ku ci mel ni Badara Ndiaye maire de la commune de njal gi ku ci mel ni Ismaïla Sène responsable politique ci Njabel Thierno Silla maire de la commune de jaxaw Sine ñu fa yéene cee décoré nag seen mag seen xarit seen grand frère bi taaw kër gi te dara ñaawul muy monsieur Babacar Ndour jëmm ju bëgg mbokk ñu ne bés baa ngoog mbokki amateur yi fan sa club bu Kër Ndour moo leen di woo di woo waa lamb di woo mbër yi ci spécial sargal monsieur le ministre Matar Ba muy le surlendemain de la tabaski fii ci jaxaw sin mise ba di 3 millions de francs CFA